nan kau nga xoole ba mu ñàpp ndayam nii laa koy estaté nii laa koy dugalee ñu xam sa sa jikko nag vrai asu njaay ngi nii njaay bi nii kilifa laa ci dëkk dindi dindi kon dafay lañ la ñàkk respect yaa toog ni di nga li nga dëj bi dala la ñëw nii nee na loolu la wax de. ah merci beaucoup. gis nga man la ñuy waxal noonu bi. merci waay. bëgguma la. doomu Bàmba la nga saay borom jadi li too xale li sil meeni sëriñ jaanu malaado yi bi ah muy judd père ci daale ngeen ma lay naale la fa demee nag bu xaay rek ñor ma bu xaay da ñoragul su ko denc ko ko laal noonu la fa demee moom la espagnol bi di wax li yow booli ko doon booli baali wala si woole la kala booli ay état ay la fa ñamaxoon nag <laughs> rek ba tous ñun bandi dañ koy ba ngeen ci ngeen commencé dañul ci suuf lañ commencé booy di xoteeku mu naan dara rek di dagg nday suñuy sexe nank rek. <laughs> ah si eh, gaynde du jur muus ah. waaye bëgg tamit du jur bay de. noonu fa demee nag. dama féet yow oh, maa raw. bilaay sama doom amul dara. yéen ñi nekk fii nag naan booy jàmm gën ñu xee xoo rek mbaa tous. <laughs> nga répé xoolal sama téléphone bi laay toj def ko mbaari. aha ndeysaan te waay waa Galle Sera Thank you.